saar wi ci tegu mooy suratu huut tudd gim tudd baatab huut di am yonantu bu yàlla yónni woon ca nit ya ña moo tax mu tuddee ko saar wi mooy tuddee lenn wala tuddee lépp ci turu lenn màkka la wàcc ba mooy aqimi salaata ak lu dul fa laalaka taariku loolu rek ñu ne moo ca wàcc madina saar wi téeméeri aaya ak ñaar fukk ak ñett ñii ak ñaar fukk ak ñaar saar wi dafa ko xubbee xuruufu muqataa yi nga xam ne waxoon nañ ca lu ca bëri muy alif laam raa nga xam ne yàlla dong moo namu lam ca xam moo namu moo xam lam ca namu ñu alif gi la ñu ju bépp tur yàlla bàyyi ko alif niki ahadun laam gi di junj turu yalla ya bu bàyyi ko ci lam niki latif ragi di junj turu yalla ya bu bàyyi ko ci raa niki rahman waye lu ci mana am dal allah alamu bi muradihi tere bo gis wala machine bo gis wala kay bo gis amna kot alquran nak xaraf yi mu hubbee saar yi mooy yi amna ci yo xamne kot ba ben la niki qaf ba sat am yo xamne kot ba ñaar la niki hamim. xam yoo xam ne code ba ñett la ni ki alif laam raa xam yoo xam ne code ba ñeent la eh, dégg nga am ci yoo xam ne code ba ni alif laam miim raa am yoo xam ne code ba juróom la kaaf yaa ayn saat ak hii miim ayn siin qaaf kooka nag ki ko côté di yàlla doo nga ma ko xam ak kim décotel code ba muy Seyduna Muhammad moo tax Jibril mi ko indi bi mu waxee rek yontu xam naa jibril mu ne ko naka ngay luma xam ma la andil kaaf ya ayn saat luma ne kaaf nga ne xam nga luma wax nga ne xam nga taman kon yalla ko côté kam ko kotel dong la ko xam ñi fi am seen machine yi fonku yek seen valise yi defal nañ ko code seen ordinateur yi seen cd ñom dong ñoo mëna de code ba lu dul ak lu akkuñ ko xamal kese bismillah sos ma sama wax ci tuddu turu arrahmaani buur bay xéewalaa bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira alif laam raa yàlla xam lim ci namu kitaabun moom de téere la uqimat boobu xereñeef na aayaatuhu aayaam yi ci kéemtaanu nose ak ci kéemtaanu balaaxa su ma fusila topp fanañ fanceef na xàttee ca nekk ak xisa ya min la dun xakkimi mu tukkee koo ki nga xam ne ah, xeeña xakkoon ah, la xabiiru nekk koo xam ne ku dañ kumpa la def na bi maanaa eh, bam ne rek bam ne bam ne maanaam uxkimat xam nga uxkimat kooku moom moom xakimin bam ne tamit maanaam fussilat kooku moom moom xabiirin su ko defee nag yàlla ne eh, dégg nga an yeey laa taxabudoo bu leen jaamu e laay ndara yàlla inna nii naka man nazirun aji waar la lakum leen munu ci moom ci alquran minu ci mbugalam yàlla ma wa basirun aji bëgg laa ci payoor bu ngeen gëmee wa an yastaxfiru jéggalu rabbakum seen borom su ma tuubu topp ngeen tuub kon istixfaar ak tawba duñ benn tuub leen ilay jëm ci yàlla ci topp su ngeen ko defee yu mat dana mu yóbbal leen ci àdduna mataan ak yóbbal na bu rafet ilaa ajali mu jëm diir musaman nga déggoon tubal nga déggoon tudd kon ndeke tuub yokk ak wërsëg day waral tamit naat su ko defee wayuuti a mu jox moom yàlla ci àllaaxira ku la fii fadlin bépp borom ngëneel ci jëf faddaloo ngëneelam la mooy payooram wayun tawala su fekkee da ngeen dëddu walis maanaam ngeen gëm yàlla fa innaka man aqaafu naa ragal alaykum ci yéen azaaba yawmin mbugalam bis kabirin boo xam ne bu mag la marji xokkum seen ak delluwaay yéen ñëpp da laa jëm na ci yàlla moom moom yàlla ci lépp kon gis nga tawba bo defé bakar shartay tu bu kul bay bakar ba moy iqla réer ci lu ngay def bakar ba dogul ki sa xol ne dootoo ko defati nga def nag dabaatal asaka yalla reccion nga fay ko julli yalla faton nga dabaatal ko haq yi doxon sa digganteeg nit ñi ci lek seen halal nga delo len ko tabahalu len leen ci tardé maga lii mooy tuub balaa mën a wér day mel ni xalu safara xalu safara ku dëgg ba dëgg ca dese nga beneen tëbin tëbin gi nga tëb nag dali fale mooy iqlaa réccu da nga réccu lu taxoon nga dëgg ci ana damu xalaa maa faata xaw ma ban xal moo lay lakkati waaye doonu doonu wii da ko fi jëlee mbaa nga jógee koo fa yow su ko defee tamit kooku nag mooy wan niyatu allah yahuda ila zanbin tuub boo xamee meloo xalu safara rek su ko defee yàlla nangu ko nga dabaatal nag dabaatal mooy jeli ndox ñew fay safara wa mbaa nga toxale ko fa ba nga gas ko sul ko lolu kon moy la ca faton moo tax tuub dal boo ko bëggee xam ni ngi melni kuy tukki frontière bu la mbugal ma dañ lay delo hat fa la baye ko won kon de ko ngok delo ko xaat nga fa nga neexon da nga réccu lu taxon nga frontière de da nga dogu na dootuma jéggati frontière li ma ci jógee ko ci mbugal kon yi bu ko amé rek amna istighfar nak moy nang ka tok nak di jéggalu lu taxoon moy jéggi frontière ba coono bi ma ma dacc mang koy yalla kon li moy tot euh, diggante farqu tawba ak istighfar ñom ñaar ñepp nak def ko bala istighfar am rek day nek ci gënaaw tawba mo kon na al istighfar ba'da tawba loolu moom lay mëna nek dana sababu sabab ko gor sekk ndax bakkar mom lam don, rek la doon bo jëlé bakkar boko boko xalbo mu jox la bekor ku nekk ci bàkkaar mënu mukki ci bekkoor dara nga ca mënut man ngaa bekkoor sa yaram ci di man ngaa bekkooree fan wu gàtt man ngaa bekkooree ay ay ay torof torof man ngaa bekkooree halal ju yàqu man ngaa bekkooroo yaakaar ju tas man ta ñàkk boo nekkee nag ci topp yàlla def ndigalee ya bàyyi tere ya su boobaa nag yàlla soppi sa bekkoor naataange ak xéewal nga nekk ci jàmm moo sax Euh, jubal nekk ci yoon bu baax day waral tabaarakallaahu day waral maanaam temps bu bëri wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan xadaxan la asqaynaahum maan xadax la asqaynaahum maan xadaxan xamar nee na nag fu ndox bëri wërsëg bëri fa fu wërsëg bëri fitna dootu fa jógati wa haysu yujudul maa'u yujudul maalu wa haysu yujudul maalu tujudul fitna dara nga ca mënut kon nag istixfaara ngoog ay ji lay tekki na ñett mënta ñàkk ñaar ta ñak sharia ak haqiqa sharia bu leer boko top mu yobul ci haqiqa sharia kese bu duut am ak haqiqa atila la shariatun bila haqiqa atila wa shariatun nak haqiqatun bila sharia batila haqiqa bu hanu tak sharia neen dong mata mam khalifa ne kam batinin yawmal qiyamati batilun bari lu nu di coow naan baatin baatin fekk baatin rek la yowmal qiyaam yàlla yàlla musal wu ci ku topp maanaam géej ak sariya ak gine nga koy xuusee bu yàggee rek moo lay mbañ nga mën a koo xuusee ci gaal ak xaqiiqa gu wér a wér a wér a wér doo suux doo lab doo lable aaya ji taxu ci ci axnas la wàcci ku neexoon làmmeñ la bu dajeeg yonent bi wax ja rafet lool bu wanee gannaaw wax ja bon moom aya umin min naasi man yujibuka qawlu loolu lañu bari wax lamuy lem leem ca ba ci ay pas-pas yu bon na yu bon bokku tak la làmmiñam way talal ñenn ña ne déeréet ji ñu gëm yalla lol xam kersa ci yalla ba buñu dem wanak dañuy jël seen xar ba leem ko ci seen tank ya ngir heras yalla dañuy xam heras tamit di yéet soxna yi di sëyeeg ñoom nuñ mën a nëppatoo ña koy def moo tax Buxaari yu loolu la wax moo tax mu ne allah waawee innahum naka ñoom yes nu na danañu leem su dóoruhum seen dënn ya waaye dënn kenn mënu koo leem la ca biir la ca namu li yastax foo ngir nañu nëbbu minu ca yàlla allah waawee xiina yastax suuna waxtu nga xam ne ña ngay muur siyaabahum seen yëre ya di ko muuroo ngir ak kersa ci bu ñuy dem wanag mbaa ji jot seen soxna yi yàlla mu xam na moom yàlla maa yu wa ma min daabatin amul jenn aji yu kët ardi ci suuf illaa alallaahi lu dul ba war na yàlla risqoha war sa gëm wa yàlla warlul na ko boppam donte dara waru ko wa yàlla mu xam na mustaqaraha dëkkuwaayam ci àdduna wa mustawdaaha ak dencuwaayam bu deexee kullun loola lépp fi kitaabin mi ngi ci téere mu mubinun ngay aji biir ngay aji biiral te mooy lawul maxfuus wa huwa moom yàlla di mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na asamaawaati juróom-ñaari asamaan wal ardak juróom-ñaari suuf fi sitati ayaamin ci diirab juróom-ñaari fan ci fan yi àdduna ñu ci fanu àllaaxira lu tax mu def ko jàngal nit ñi tey rek. wa kaana nekk na arsuhu gàngu naayam nga njëkk muy bind juróom-ñaari asamaan ak suuf alal maayi ci kaw ndox waaye dafa nekk ci kaw air air ba nekk ci kaw ndox lu tax mu def ko bind juróom-ñaari asamaan yi suuf ak ñi fi ne li yabluwakum ngir na nattu leen ayukum anakumu ci yéen axsanu moo gën a rafetal amalan ci jëf walla in qulta buñ la waxee yow yonent bi na innakum naka yéen mabuusuuna ñu ñuy dekkil ngeen min baadil mawti gannaaw dee la yaqulanna danañ wax lazina ñi nga xam ne kafaru maanaam weddi nañ ne in haasa dir alquran ji di wax waxi dekki illa sirlu muy njabar mu binin koy aji biral ak njabar wala ina axarna su fekkee yéexee nañu walis leen alazaaba mbugal ma illaa ummatin jëm ba diir mooy waxtu rek maxdudatin ba de buñ dëgal euh, maanaam la yaqulanna danañu wax da maanaam dana wax ngir ak yëjji ne maa yax bi su tërwut wàcc ak mbugal ma yàlla wax ne allah waawee yow ma yaatihim bis bu dina dikkal leen moom mbugal ma lay sa masrufan déet mu lu ñuy jañ xanu walis leen waxaaqe xëy na bihim ci ñoom maa la nga xam ne kaanoon nekkoon nañ yëstasun dëppitu ci ak yëj ji bi ci moom ci mbugal kon gis nga ko yàlla ngoog di rabbul isati wal jabaroot mi ngi ñuy xamal ne amul dara luy yukkat ci kaw suuf muy mala yek njanaaw yek yent yent yeeg doomu aadama yi way waxut la nek ci kaw ndax li nek ci kaw soxlu wut wërsëg wi ñoom sàbbal yàlla sant ko moy seen ñam moo tax tuddut yu yukkat nek ci kaw asaman di malaaka yak ya rohani yu na ya li yu yukkat nek ci kaw suuf ño soxlu woo wërsëg wu lek muy nit ñeeg jinne yek mala yek njanaaw yek yi ci haju yalla nak dar waruko way na bopam ne lepp lu mu lu mu lu mu lu mu bind mu yukkat ci kaw suuf lu mën a doon rek moom gàddu na ak wërsëgam bañ na ko ba indi baatab alaa nga xam ne kaw lay tekki te ndax xarfu istixlaa la yàlla nag dara féetewul ko kaw moo indi baatab alaa ngir daral suñ xel rek wane ne wërsëg ci sama loxo la ne kenn ku ne ci yéen yu doon tooy wax ni ko dee am di ko wutee ni la ko war wërsëgam di wutee soo ko doon daw sax moom dana daw topp la yàlla moomu nag xam-xamam ndar képp na mbooleem mbindéef yi seen saxuwaay mooy mustaqara boo jëlee mustaqar ibnu mas'ud dafa ne mooy ruhumu yaay yi nekk gañ fa nekk yépp gañ fa neex yàlla xam na ko mustawda nag mooy nit ki bu dee fañ koy denc suul ko fa yàlla xam na ko noonu la ko ibnu Mas'ud moom siree boo jëlee tey mujahid ne na wërsëg ci yàlla dong lay baxee ko moo tax nañ ci dalal xel yi kenn ko ne ci ñun newoon nga fu gën a ruqe mënoo wax mënoo jëf mënoo dara te sa wërsëg mosta tarde kon bu la yàlla indee ci place boo xamee ne nii yaatu na nga mën a wax ami pexe bu ne la fàttewut la nga war koo mën a gëm yàlla moomu kon moo yore wërsëg yi na ci seen xel dal wërsëg yooya nag mu ngi wut nit ñi comme ni suñu dee ni ñuy wutee kon nag nañ dem jaamu ji yàlla rek tabaxee yàlla mbiram wërsëg ñaari wamaañu ci alquran muy ñaari waar. waar wii yàlla ko dogal boppam moo koy bay du booy mooy sa wërsëgal ñu waar wii ñun la ko dogal nañ ko bay bum booy te mooy ñu jaamu ko rafetal jaamu ga ñun nag dañ fee bay suñu waar wi muy booy ñuy jàqale yàlla ca waaram wa waaru yàlla wa mooy sa wërsëgal ñu wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi rizquha kooku nañ ko bàyyee yàlla du tarde mukk du booy mukk ta kenn ku ne ci ñun nekkon nga place bu ruqi ci sa biiru yaay jël fa ma wu neuf mois la ko ci son sa lekk ak sa naan mosta tarde bo soxlé sofas mu tang nga soxlé nga soxlé manam kilim bi mu sedd ta kenn indilu la facture sa añ sa reer sa mosta tarde ta bobu mëno wax mëno téléphoné amoo menn pexé bu la ndé ci susu yaatu si jox lay pexé yi di wax yi di dégg yi di gis ya ànd ak xel ya ci aju yëpp bu la ci xeñee yenn ya xam na yoo desee bu ne la fàttewuma la sa xel war naa mën a dal ci wërsëg bu baax a baax a baax dañu bàyyee ko yàlla moo tax kon na suñ xel dal ci wërsëg moo tax Ali ibnu Abi Taalib jaaseem ja daf caa bindoon wërsëg lu ñuy séddale la arisqu maqsumun mu ne ko xañaan mooy kuy xeñ mooy kuñ xeñ ci ki nay moy ku ñu ngagne ki dafa daan bind ci jasim jene arisqu maqsum wal hasidu mahrumun wal baqilu madhmumun li la ali ibn abi talib bindon ci jasim ja wala ne wërseuk na ci xel yi dal mbiram yalla la euh yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud moy netali mosna tukki and ak bi ngi deg melni picc muy sap ibnu mas'ud yonent bi wax ko mok anas ne ko waaw ndax li picc mi wax xam ngeen ko ñu ne ko dedet mu ne dafay wax ne ya rabbi khalaqtani ama wa ana jaya'un fa at'inni yow yalla ya ma bindu dama gumba te ya ngi ni dama ma ngi ni dama xif leel ma ñu tok tuuti rek ben ñeel ñew naaw ba tollu gem ñum nga rek mu hubbi rek mu dubbu ca mu reg ba mu reggee mu commencé at di wax yonent bi ne li wax li muy wax ndax xam ngeen ko ñu ne ko xamuñu ko mu ne dafay wax ne euh, euh, dafay sant yàlla ci lii nga xam ne yàlla defal na ko ko qaala innahu yaxmadullaha alladi lam yujisu an yutcimahu fi xaalatihi huwa daif mu ne dafay sant yàlla mi nga xam ne lottut ci lexal ko moom picc mu gumba mii ànd ak li lompañ lompañ lépp kon yàlla bu fàttewut picc mu gumba manta naaw fa tok toog lay toog wërsëgam di ko fa fekk xel war dal yalla won nako ko yalla musa bam ko yalla yónnee ci firawna na fekk ma nga andu tok njabotam nga baye ko ci shuaibu ne len xaar len rek ma hutil len safara soxna sang nga bañ nan tay la yam dom ba mu demee di huti safara fa dajee faak boromam ko xamné nak da nga doon huti lu taxoto na juk ba dajé li la taxa juk da nga dem ba faté li la taxutoon li la taxoon juk motax boba rek la bàyyi njabootam da yalla ne ko isa bila firawna innahu taxa mu jóge muy xelaat njabootam gi fekk am sa ci guddigo ga sax ci la am dom mu ne sama njaboot gi way ma bàyyi gannaaw soxna sa ak ñama andak tay ci ñu wara mëna dundé yalla wan ko ko ne ko jëlal sa yad wi nga door bam dooré yad wa ci aw doj mo xar mu digalaat ko mu dóor ko ñaari yoon aw sax génn ca sax wa nag nekk na ca gémmañam nga eh, ay yent yent yu muy lekk eh, su ko defee nag mu sant yàlla ne yàlla mi fàttewut sax wii ak doj wii mu nekkoon ci biiram la ko fay fekk fekk ko fa du fàtte sama njaboot gi ma bàyyi gannaaw booba rek ci la xelam dal nag ca njabootam nga fa waxatu ca dara lu ca jëm kon nag na suñ xel yi dal ci wàllu wërsëg yàlla fàttewut kenn kenn ku ne fa nga ne ak nang fa nexee yàlla xam na ko moo tax kon boo jëlee aayaat yi ci gannaaw dégg ko yàlla moomu xam na li nekk ci juróom-ñaari asamaan ak suuf waxoon na ko xam na li ci jëmmi dënn yi inna wa'lam bi zaati sudur wax na ko fii tamit mu amul lenn luy yukkat ci kaw suuf ak nu fi mën a nexee rek ludul ba yalla xamna na saxo wayam ba xamna timit tamit ëllëg bu dee fan mooy nekk nekk wayam ki xam loolu nag nañ ko bàyyee suñu mbir bàyyee ko suñu bopp te li ñu war daal mooy fuñ mun di nekk nañ def ay ndigalam bàyyi ay tereem suñu bëggee am jàmm loola lépp yàlla ko enregistré ca lawhul mahfuz yàlla bind na ak suuf juróom ñaari fan bisu dimas la commencé àjjuma mu pare bi mu ko bindee ci lépp nag njëkk muy bind asamaan ak suuf bindoon na gàngu ga moo gën a rëy lépp mu nekk ci kaw air am ndox tamit maanaam tiim ko boo demee ci ahadis yi li yàlla njëkk a bind mooy xaqiqatul muhammadiya ba ko yàlla xoolee xool ak xëy ba mu mujj ñaq loolaa andi maanaam géej yi su ko defee tamit nag yàlla xool. ko mu nek duratul bayda mu def ko muy ndox mu jël ngalaw la digale ko ci jël arasam gangu nayam nga tek ko ci kaw ngalaw li nga xamne dafa teggu ci kaw maanaam euh, ndox moomu non di géej googu su ko ci tafsiru ghazin bu cheikh na tijaani fonkoon la mba nga dem ci ruhul bayan dana wax ci loola lu bëree bëree bëri lutax mo mu ñu fi dafa ñuy kër xala ah, barsaxa kërëg ndigandiku la xala kër kërëg fayeeku la mu ne nag indi naa fi seet li yabluwakum ayukum ahsanu amalan loolu wax na ko ca suratul mulki tamit si yéen ana ci kan ci yéen moo gën a rafet jëf ca la muy liggéey kon nañ rafetal jëf yi bu baax a baax a baax a baax te góorgóorlu ci xoolal asamaan juróom-ñaar diggante asamaan su ne ak moromam doxab juróomi téeméeri xat la foo ko fekk dafa koy jamo-jamo mu ana salim kulur ya ak matière ya dañu wuté asaman sun njëkk nga xam ci la falakul qamari nek dafa melni ay aw aw duus wu ñu ñu kaste su ko moy saxu way ro wu julit ni bu ñaarel ga fala fala ko xataa nek dafa tukkee ko ci wuru su wurus tal moy tal wayu ro wu jami yalla yi ibaad yi bu ñettel bi moy fala zuhra dafa mel ni dañ koo liggéey ci matière am weñ mooy saxuwaayu rooxu ñu dëddu ñi su ko defee bu ñeenteel bi ca la falaku samsi ñeen nekk dafa mel ni dañ koo liggéey ci matière bu zone fa la saxuwaayu rooxu yàlla ya nekk bu juróomeel bi fa la mariix fa la nekk dafa mel ni koo liggéey ci përëm fa la saxuwaayu rooxu yi yonantu yi nekk bu juróom-benneel ba fa la falakul mustari nekk dafa mel ni dañ koo liggéey ci xaalis. fala saxu waayu rooxu yi maanaam anbiya yi maanaam tamit nekk juróom-ñaareel ba nag fala suxal nekk moom dafa mel nañ ko liggéey ci wurus fala saxu waayu rooxu yi ñu niwul ni ña nekk su ko defee nag ca kaw nag foofa fala arsu rahman nekk muy rooxu ki mottali yonantu yàlla yi di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon yàlla ngoog moo tax mu ne wama min daabatin amul jenn aji yukkat fil ardi ci suuf illaa alallaahi lu dul ba war na yàlla risqoa wërsëgam wa wa yaalamu xam na moom yàlla mustaqaraha palaasu saxuwaayam ba ci àdduna xam na palaasu saxuwaayam timit ci ndigal waajuram wa ba mu ñëwagul wa mustawdaaha ak palaasu dénk waayam ba te mooy bu deexee wala njëkk muy judd timit xam na ko bam nekkee ca ruhu yaayam yooyu yëpp la sahaba yi wutee ci firi bi ku loolu lépp fi kitaab bi nekk na ci téere mu birin bay aji biral te mooy lawul mahfuus moom yàlla di mooy bur ba nga xam ne xalaqa bin na samaawaati juróom-ñaari asamaan yi wala ardaak juróom-ñaari suuf yi fii sitati ayaamin ci diirëb juróom-ñaari fa juróom-benni fan wa kaana nekk na arsuhu gàngu naayam ga xalal maa yi ci kaw ndox mi li yabluwakum lu tax mu bind leen ngir nattu leen ayukum anakumu ci yéen ahsanu moo gën a rafetal amalan ci jëf wala in qulta wallaay soo waxoon yow yonantu bi ne innakum naka yéen mabuusuna ñu ñuy dekkil ngeen min ba'dil a gannaaw dee la yaqulanna dana wax la fi ñi nga xam ne kafaroo yi dinañ ne in haada déet lii illaa sirrun buy njabar mu binul ngay aji biral ku xas dee ba yax ya fënax naka lay mën a dekkeeti ngir ak seen ak dof rek danañ wax loola waaye nag ñàkk a ñàkk a xam rek wala yi naa xar su fekkee yéexee na nga walis leen alazaba mbugal ma ilaa umatin ba jëm ci diir mu yaay waxtu maxdudatin ga diguñu lim la yaqulan la yaquluna danañu wax ne maa yax bisu ngëbut ko yàlla nag ne allah waawee yow ma yaati bisu dikkal leen mu mbugal ma laysa masrufan déet muy lu ñu wëlbati xanu walis leen wa xàqa xeey bihim ci ñoom maa kaanoo lañ nekkoon yastahzi'uuna di ko yëjji de kon lu yàlla bindul xéeféer moo ci gën a ñàkk xel moom dëgg-dëgg daal ñàkk xel dëgg-dëgg mi ngi xem ci nekk ab ab xéeféer fa la ñàkk xel xem ñu nekk ñoo xam ne su yàlla yéexee mbugalam mi ba ab diir bu ko date ñu ne ah mbugal mi de dara téyewut ko te ñoom ña ngay ñang ñang ko doon ñang ko doon yàkkamti ngir mbugal ma ngir ak yëjji yonantu bi yàlla ne bis bu mbugal ma ñëwee xamul dara lu ko mën a fanq xamul dara lu ko mën a jañ faw mu taw ci seen kaw suñ leen mosalee timit nag yërmande moom xéeféer ndeysaanam mu naagu euh, mu ji bew saatagaay su nekkee euh, suñ ko mosalee xëye maanaam nattu ñàkk feebar mu saalik loolu mooy jikkoy xéeféer kenn xamut xéeféer daal mooy lan rek ci ak dofe moo tax mu tofal ca moom yàlla ne wala in azaqnaa su fekkee mosal nañ al insaana xéeféer bi min naa ci ñun min naa mu tukkee ko ci ñun rahmatan yërmande yërmande mooy koom-koom ak wér su mën na sax naa topp ñu nocci ko min hu ca moom innahu naka moom de la yawusun naagu haa kon la ci yërmande yàlla kafuurun weddi haa kon la wala in azaqnaahu wallaay su fekkee mosal nañ ko nag naama qiwu baada darra gannaaw ak lor suñ ko mosalee ak ñàkk ak feebar gannaaw ba mu nekkee ci wér masaru goog jot na ko la yaqul lan na dana wax ne zahaba dem na as musiba yi xam ni wal dootul séenuuti ak dañan du ca timit sant yàlla innahu naka moom xéeféer bi daal la farihun maare kon la faquurun puukare xàkkoon la ci nit ñi timit illaa lazina illa lazina dara nga xam ne mu sett ja ca nit ñooña lu ñu nga xam ne sabaru muñ nañ lor wa amilu ñu jëf saalihaati farataaki naafila yi ulaayka yooye gaa yi lahum ñeel na leen maxfiratun jéggal wa ajrun ak payoor kabirun gu màgg de bu fekkee ab julli la moom su ko yàlla nattoo mu muñ bu ko yàlla sottee xéewal mu sant bu yéeféer bu ko yàlla sottee xéewal mu bew bu ko yàlla nattoo mu mujj saalik ku yore jikko jooju rek yore nga jikko yi yéeféer kon ab jullit dafa war a sant yàlla ci xéewal te nag te xam ne duut luy sax su la safaan ba ñëwalee tamit muy ay nattu foo mën a nekk muñal te xam ne tamit nekkul luy sax métit du sax waaye bànneex tamit du sax moo tax yonent bi daan wax na ñett euh, du jot leen mukk fi àdduna ak mooy saxuwaayu dogal ak koo xam ne du xool ci biddiw yi jàpp daal nekk gëm affaire xam-xamu astronomie ak koo xam ne dafa dafa sukkandiku jàpp sama sunna kon ku mel nii dëgg-dëgg mbugalam finnam yàlla finnaak yàlla ci àdduna ak àllaaxira dana ci mucc kuy saxal dogalab yàlla boole ko dogali yàlla yi bu mu ko wér ci biddiw jëfandiku mooy ci sunnaay sayduna muhammad moo tax mu ne thalathatun la tamussuhum fitnatu dunya wal axira al muqiru bil qadri walladi la yanfuru bin nujum wal mutamassiku bi sunnati kon loolu lu jara bàyyi xel la dogal nag bu neexee bu naqaree yëpp nga wéeral ko yàlla waaye dëkk yu bari ku dee yàllaa leen rey waaye ba fa yàlla gëjee rey nit kenn xamul kañ la kon yooyu yëpp ñàkk gëm yàlla rek la nit dafa war a gëm yàlla gëm ay dogalam yàllay wax yonent bi ne ko falaalaka amaat na yow taarikun aji bàyyi nga yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'da maa yuuhaa leen la nga xam ne def na wax yu ko ilayka jëm ci yow nga bañ leen koo jotal wa daaiqun aji xat la bi ci jotal ga sadruka sa dënn bi yow daal yaa ngi ci am tiis an yaqulu ngir seen a wax ne lawla usulta wàccee àllay ci yonantu bi kan su ndàmbu aw jaa wala dikk maawoo ànd ak moom malakun malaaka mu koy dëkkal mu koy dëggal ci li mu wax xamal leen rek ne innama anta daal naka yow daal nasirun aji war rek nga wallahu yàlla wakilun moy aji wattu ala kulli seen ci de am wala bahil yaquluna nya ngay wax ne iftaraahu mom yonent bi duud alquran wax ju len hayla naqul wax len ne fatu andi len bi hasri suwarin ci fukki sar mislihi ci kem alquran yu melni alquran ci fasaha ak ci balaga muftarayatin mun mbirum nek lu ñu dudde munu len ko de wadon xoo sax bu len ci hem ngeen atan min dun ñu in ku ne nekk saadiqiin di way dëggu fa in lam yastajibu su fekkee huñ huñ lakum ñaal leen faalamu xam leen yéen yéeféer yi ne annama unsila daal naka alquran wàcceef na ko daal mboxal millaahi mu làmboo xam-xamab yàlla de wa an naka daal moom laa ilaaha mut benn bur ilaaha wandare moom fa hal antum ndax yéen nag muslimuuna way jébbalul ngeen yàlla mile nan li andil leen layu leer yi yàlla yàllay wax yonantu bi ne yow de ndax dangay bàyyi lii ma wax yu ci yow ci alquran boo déggee mu waxee noona ñoom dañ ko doon wax ne ko indil ñu jeneen alquran ju wuteeg jii alquran jii day xas suñ yàlla yi deseel suñ xel yi soo bëggee ñu jubóog yow gëm la indil ñu alquran joo xam ne xasut ñu deseelut ñu bu ay wàccee yu leen ni xas seen yàlla yi di leen deseel nag muy tiis ci yonantu bi ngir xemem ak yaakaar seen ngëm loolu xaw a tiis ci moom yàlla ne ko fa laalaka taarikun baxda maa yuuxaa ilayka yow dafa mel ni xamaat na ngay bàyyi lenn ci loo xam ne def na wax yu ko ci yow nga jotal nga nekk lu xaw a tiis waaye ànd ak la muy tiis yëpp nag yonent bi jotal na ko bu mu la tiis tamit wax gi lay wax naan lu tax yàlla def na ngay milliardaire wàccee ndàmbu xalal ju dul jeex ci yow. déedéet mënoo xam yàlla xam xat ma xam pangatam xadduna ku xam ci yii doo xam ca yaa ku xam ca yaa doo xam ci yii la doon maam xalifay wax wala daal yàlla wàcce am malaaka moo xam ne foo taxaw boo waxee mu dëggal la ay eh, malaaka moom bu fekkoo di ko dëggal ñoom sax buñ ko gisee dee ndax jëmi malaaka bëtu doomu aadama xattanut ko lu dul ñenn ña ko yàlla jagleel ñu néew waaye ne leen daal waaraatekat dong laa moom nga timit yow daal wakiilu ma man yàlla maam mi ngoo seeni mbir ñu neen alquran yonent ko créé yàlla ne dafa leen ay wax jooju du yonentu arab la yéen a bokk famille ñu ëpp ci yéen moo indi téeméeri saar ak fukk ak ñeent kon lu ngeen lekk-lekk ndigg andi leen fukki saar li ngeen dut munuñ ca tus mel na musalimatul kasaab mu doon jéem jéem guy feeñal ak tële ñàkk def te dese kumpa moo ko gën yàlla ne kon nag jébbalul leen alquran ji su ngeen bëggee defaru àdduna ak xalaqira sama borom tofal ci ne man kaana ku nekk yuridu na mu alxayaata dund ga duniyaa gu jege ga wa zinataha ak taaram ba ba tax mu nuur ci kéeféer kooku den nu waffi danañu matal ilayhim jëm ca ñoom amaaluhum seen jëf ya ñu ne aaya ji ngistalkat yee tax a jug képp koo xam ne sa jëf ngistal rekk a tax nga di ko def lang ca jublu danga ko ca xam fiyaa ci àdduna su ko defee tamit nag ñu jokkalal la yaakaar sa wërsëg wa ca yooya woowum fekk ñoom nag fiyaa ci àdduna laa yubxasuna defut wàññil leen dara ci lu ñu def ulaayka yooya gaay nag nga xam ne dañuy def te yàlla tawut àdduna tax ak ngistal lazina mooy ña nga xam ne sa lahum te di leen ñaal fil ci àllaaxira ila naaru lu dul safara wa habita yàqu na maa sanaaw lañ jëfoon fiyaa ci àllaaxira genn payoor duñ tax yàlla taxutoon wa baatilun aji neen la. maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaxmaloon di ko def de yàllay laaj nag istifaamu taqrir boo ànd ak tawbiix ne afa man kaan daal koo xam dafa nekk ala bayinatin ci layu leer nañ ñi mi rabbi ku bàyyi ko ci boromam wa yatluuhu te mbir moomu dana topp ko shaahidun aji seede ju koy dëggal minu gu bàyyi ko ci yàlla wa min qablihi jiitu woon na alquran kat kitaabun téere wala kitaabu Musa téere Musa ba di tawreet imaaman mbir mu muy nekk di njiit wa rahmatan mbir muy nekk di yërmande ulaayka yooye gaay nag dëggal alquran mii tawreet dëggal dëggal alquran mii ñu ñu ñu dëggu ñu dëggal loolu dégg nga ñooñu euh, ñoo xam ne dëggal nañ ko ci andi lay yoonu danañu gëm bii ci alquran wa man yakfur ku weddi bii ci alquran min asaabi ci kuréel yi xéeféer yi fa naaru safara mawiduha mooy mawiduha mooy dëxalam fala tàkku bul nekk mukk yow yonent bi fii minitin ci sikk minu ci alquran innahu naka moom alxaqu dëgg ju sax la min rabbika bàyyi ko sa borom walakin akthar naas li gën a bëri ci nit ñi te mooy waa màkka yi ak ñu mel ni ñoom laa yuminuuna ñoom duñ gëm alquran mukk wa man amul kenn af la mu ko gën a rëy tooñ man iftaraa ci ko xam ne dafa duut xalalaay waral yàlla kadiban nar ulaayka yooye gaay yooxta doon def na du moyul leen da dul def na yooxta doon def na gaaral leen ala rabbihim seen borom yowmal qiyaama mu fay leen seen jëf wa yaqulu wax al ashhadu seede ya te mooy malaaka ya doon seede yonantu ya ci seen ak jotal ne haawulaa yi lay gaa yi li mooy ña nga xam ne kazzabu weddi woon nañu ala rabbihim seen borom allah waawee laanatullaahi rëbbam yàlla ala zaalimiin dal na ci kaw xéeféer ya ñooñaay ñan mu laa yéen a mën na àll mooy ña nga xam ne yasudduuna dañu dëdduloo an sabillaahi walis diine yàlla gi di lislaam wa yabxuunahaa ñu koy sàkk yoon woowa ay wajal mu nekk yoon wuñ jengal wahum ñoom ñoom ñooñam mi ngi koy kiital kaafir la way weddi lañ bil axira ci àllaaxira hum ñoom laa wax ulaayka yooyu gaay lam yakkoonu nekkuñu moo mojisina di mën a rëcc ci yàlla fil ardi ci suuf wa maa nekkul lahum ñaal leen min dul laay yàlla min awliyaa ki dimbale yu daaw def na ful lahum ñaal leen asaabu mbugal ma ay nit maa kaanoo lañ nekkoon maa nekkuñu woon yestatoon di attan asabaxa dégg dëgg wa maa kaanoo nekkuñu woon yubsiruuna di gis dëgg tamit ngir ak jéggi dayox seen ak sib ca loola ulaayka yooyu gaay lazina moo ñu nga xam ne xasiroo perte nañ anfusum seen bopp ngir mujj gi mujj safara wadda la sànku naan walis leen maakaanoo lañ nekkoon yaamaloona di ko jëf de te loolu mooy jëfi féeri de maakaan nekk ko yaftaroon di ko duut de kon ayaat yooyu yëpp sama borom subhanahu wa mi ngi ci mbëmbëstal wane ne képp koo xam li nga nekk layu leer nañ ko lal di mel ni yonent bi ay layam lépp di alquran ànd ak loolu alquran moomu ba mu di ay layu leer moom yonent bi wa yadlu shahidun moo am lu koy topp di ko dëggal lam nekk te mooy jibril takat kat ñu ànd ak loolu muhammadi alquran mii nga xam ne tawreet ñëwoon na di ko dëggal alquran mu dëgg moomu ñu ko dëggal nag ñoo ñu gëm yàlla piir ñu ko weddi nag ci kuréel yi mooy ñi nga xam ne ñooy dem safara ëllëg mooy nekk seen rendez xamul kenn ku gën a rëy tooñ kuy créer ay fen di ko askanee yàlla ñooña sax def na gaaral leen ci seen borom seede di malaaka yee seede ñu yonent yi jotal nañ xéeféer yee bon wane gannaaw dong dëddu yàlla dëdd yoonam wi su ko defee def ko muy aw yoon wu ñu jengal waaye yàlla na mënuñ maa rëcc mukk ci kaw suuf su ma leen ni bëggal kenn ku leen dimbale xamu fat naa ko ful muy lañu ñu réer ak la ñu réere laate ndax ñoom xamuñu woon ak dégg xamuñu woon ak gis ngir ak sib giñ si boon dëgg bëgguñ koo dégg bëgguñ koo gis moo tax pertal nañ seen bopp ci mujj gi ñu mujj safara ñooña nag kon mooy xéeféer moo tax loolu kum nekk ci yow perte nga ah, ah, ah, boo jëlee abi rata boo demee ci tafsir bu ñu tuddee qurtubi ñu ne yonentu dafa mos a toog ay saabaam toog dajee kenn ku ne ca di tudd mbaax ca yeneen passé woon kii ne Ibrahima amul morom yàlla jàpp na ko karit kile Musa amul morom yalla waxe nako ko Isa amul morom moy rogu yalla yonent bu genn sen bir nek leg mbax nek ci sa kanam ta do ko gis leg leg yalla jox la kilifa go hepp kilifa yëpp waye pognatam aduna ak beug daraja tax ko gannaaw di huti lenen te li ngay huti li nga ko hepp dole. yonent bi ne musa momu ngeni di ibrahim ak Isa sun dundu nak man ci jamono duñ mëna nek nekk lu dul samay taalibe yu may top maa ngi leen xamal nak képp ko xamné ne nak mom jamono ba àdduna bi tukki ta topul ma safara la jëm abi hurayra nekkoon naa di sakku ci alquran di setantal jan aya mo deugal wax ci bi ak mom ma set ko mu ko ma man fur bihi min al ahsabi fa naru mawiduhu fala taku fi minhu li mo deppal mom lepp alquran mi di deugal yonentou ku ko wan gannaaw di xol miracle ab keneen bam tere la ko gis so lëggee sa rendez-vous moy safara mo tax kon ki xam li gën waro ko fe di tag li nga xamne ne li nga xamako ko gën ñu koy def ñëpp poñetam àdduna lañ cey jëlee lañ ca bëgg te duñ ko am tane dong la leen jural kon nañ gëm yalla doyloo yonent bi miraakal yu rëy yi ko yàlla jox ak mag ñu baax ñu yàlla wërsëgalee gis nga ko alxuraanam ji mu jox ko dëkk na ci fukki saar mënuñu ko mu dëkk benn saar faatoo bi xasri suwarin mënuñu faatoo bi suratin mislihi mënuñu falyaatoo bi hadisin mislihi mënuñu mu ne kon nag jébalul qul ijtamaat al insu wal jinnu ala an yaatu misli hada al quran laa yaatun mislihi wal kaana baaduhum li baax Wahai zahira waaye nit ñi nak li tax ñu gis alquran ak miracle yu reuy yalla jox yonantu bi pour yatam àdduna rek ku ko bëgg ñi dajale ko jox lako ba max la yalla kat mom bur la bu bandu bari njabot bari yermande fo téye mu dagal la waye fexel ba téye fum gëreum rek waye bo téye fum gëreum ak fum gëreum yépp mu dagal la ndax lu lay sa da du dara lu kijariño rek mo xam da ko xam ci lu dagan mba ci lu haram kon loo jëriñoo rek sa wërsëg la soo ko xamee ci lu xaraam ngaa yàkkamti boo teeyoon da nga xam lu dagan dana la ñëwal boo demee sàcc mbaa nga karta mbaa nga tappale ngaa yàkkamti rek waaye a ah kay sa wërsëg la waaye bala nga woon a dee rek da ko xamee ci ganeen xanam kon nañ doyloo yàlla te xam ne yàlla doy na ci lépp sama borom tofal ca sama borom tofal ca la laa jarama dëgg annahum naka ñoom yéeféer ya hum ñoom laa wax na way pert lañ fi laaxira ci àllaaxira wax ja jeex mu ne la si ñaa ñi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran wa wa amiloo ñiy jëf saalihaati farataaki naafila yi wa axbatoo ñu dal wa axbatoo ñu dellu ilaa rabbihim jëm seen borom ulaayka yooye gaay asxaabul ñoom borom xal jaana hum ñoom xaalduna way biil lañ fiha ci aljana da duñ fa génnati de yàlla nag di léeb ne masalul fariqayni kem ñaari kuréel yii te mooy xéeféer bi ak julit bi xéeféer ba mooy kal ama fa mel ni ku gumba wal asame ku tëx boole gumba ak tëx kooku mooy melaw xéeféer julit ba nag wal basir mooy koo xam ne aji gis la wa same tamit aji dégg la boole dégg ak gis kooka mooy melaw julit ndax yàlla laaj nag ne muy istifhaamu inkaar ne hal yastawiya ndax danañu ñoom ñaar ñi masalan ci kenn ñu ne déeréet yàlla ne kon nag ne afala tazakkaruun maanaam ngeen waaru ba mën a topp diine ji xam ne xéeféer ak jullit mënuñoo xem xéeféer melow mooy ku tëx boole ko gumba jullit melow mooy njàccaar boole kook dégg ab tëx ak gumba nag ku ko bëgg a déggale yaay sonn waaye moom du dégg dara saar yi comme màkka la nag faaw mu tudd ci xisaa yi jiitu woon muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd seen nit ña ba ñu weddee seen yonantu ya fu yàlla jaaroon ak ñoom defalee ko yonantu bi tamit ne ko foofa rek lay jaar ak sa gaay yi le yonantu yàlla noox la njëkk a tudd premier bu ñu indil na nitam ñi ay layu leer yag ci ñoom lool ñu wan ko gannaaw yeddi ko gannaaw bam amé ci ñoom at ñu manki juroom fukk sama borom jox ko ndigal mu xett gal gal ga nek ñetti yu ñu né guddu ñaayu gal ga ñetti téméré xassabu la su ko défé nak bi ñanaaw bi yent yent yi ba fété kaw nit bam koy yett nag nitam ñu bon lañ sa yu defare gal rek ñu fekk ko di yak ci ko sama borom sant ko mu wut xaj yonentu yalla no wut ñeuk wut xaj buy garde mu jige dañ daan ñew di ci cabinet mu jige yalla sat leen febar febar ba kat la koy wëral mooy demaat hat cabinet yak mbalit mañ sotti won ci eh, gaal ak noox ga rek mo leen mujj saafaraat te ku bon bu tooñee nit ku baax lu bon lam ko tooñee woon yëpp dana del siwaat ci moom lu jar a bàyyi xel la noox di xett gaal gaa ñu ne ndofam ga mat na nu gaal di dawee ci jéer yi mu ne yéen ak may ree li may liggéey bu sottee danaa leen ree yàlla nag noox moomu nitam ñi lay wax si wax na ko ci aayaat yu bari ci li ñu romb ak li nar a nekk ci suñ kanam su ko defee nag bu ca paree dana waxu huut mi yàlla yónni woon ci nit yonent yàlla aad yi huut mi yonantu ba yàlla yónni ko ci nit aad ñi dana wax saalihu min yonent samuda ya dana wax lut ak góor jigéenam ya ah, dana wax yonent yàlla ibrahima dana wax yonent yàlla musa ba door a ñëw nag ca yonantu yàlla soaybu léegi nag ci noox lay commencé moo tax mu ne wala qad arsalnaa wallaay sa dëgg-dëgg yónni woon nañ nooxan noox ilaa qawmi jëmi ci nitam ña ba mu ñëwee mu ne anni naka man nazirun aji waare laa mubinun kay aji biral ak waare lakum ñaal leen la ma leen i waar mooy allah taabudu bu leen jaamu illa laa ndere yàlla inni naka man aqaafu ragal naa aleykum ci yéen bu ngeen jaamoo ku dul yàlla ragal naa ci yéen azaaba yawmin mbugalam bis alima may borom ak mettital ci àdduna ak àllaaxira fa qaala wax na almalawu mbooloo ma te mooy ñu tedd ña nekk ay patron allazina mooy ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ min qawmi cantam ña te mooy asraaf ya ñu ne ko maa naraaka gisuñ la illa basaran loolu ngay naa kem ñun ngëneel doxul sa digganteeg ñun wa maa naraaka gisuñu la ittabaaka di la topp illa lu fi nga xam ne hum ñoom araafilu naa mooy woy suufe suñu nga xam ne ñooy ràbb yi ak ñi nga xam ne ñooy wuude yi ak ñi dëbbu daaxi dàll yi baa dee rë yi mbir mu ñuy nekk ñu suufe ji xelaat xamuñ benn gis-gis ñoom dong ñoo la topp ba du ko defee nag wamaa naraa gisuñu làkkum ñeexal leen xalay naa ki ñun min fat leen ci benn ngëneel bal li fi nekk daal nafu nukkum jort nañ leen sax kaasi bi na ngeen way nar ci li ngeen nekk xaala wax moom mu yonentu yàlla noox ne yaa qawmi yéen sama nit ñi araaytum solo leen ma in kuntu bu ma nekkee ala baynatin ci layu leer nañ ñi min rabbi bàyyi ko sama borom wa aataani mu jox ma rahmatan nubuwatu min hindi gu bàyyi ko ca moom fa amiyat lëm alaykum ci yéen an nulsimukum waha ndax danaa leen ko togg mooy forcer leen ko fekk wa antu ndur moomu yéen kaarihuna way sib ngeen laa ñeel ko déere duma ko def de wa yàqum yéen sama nit ñi laa asalukum laajuma leen alayki gisal gi ma gisal risaalatu gi maalan benn alal laajuma leen ko in ajri déet sama payoor illa ala laahi lu mu war yàlla wa maa ana déet man tamit bi taariji lëfina may aji dàq ñi nga xam ne amonoo gëm nañ comme ni ngeen ma ko digalee naan dàqal huude yeeg réwkatu dàll yeeg dañuy dëbbu daaxe ñu sori la ñun ñuy sang yi ñu man a ñoo jege ñu man du ma dàq kenn innahum naka ñoom mulaaqu rabbihim way dajee la nekk seen borom ëllëg ci dekki kon nag du leen dàq te man tamit dinaa daje sama borom ci dekki ko léegi kon dana ma fay loola walakin li fi nekk man araakum gis naa leen daal xaw man ngeen yu nit te jaxaloona yoo xam ne da ngeen a réer mu jëg seeni mbir fa muy mujj waaye xom yéen sama nit ñi man yéen suru na man yéen suru nii ana kan moo may tere minallaahi ci mbugalam yàlla in taraktuhum su fekkee dàq naa leen ku may dimbale ci mbugalam yàlla ma xamut afala tazakkaruuna maanaam ngeen waaru nag wala aqul du ma wax lakum ñaal leen ne indi aji nekk la fa man xasaa'inul laahi ndàmbi yàlla yi xamewuma ko man daal du ma leen wax tamit ne wala a man xaw xam naa alxayba lu fàddu ma wax ne inni naka man malakun malaaka laa man daal nit dong laa wala aqul du ma wax li la si ne ñeel ñi nga ne tasdari dana xeeb ko aynukum seen bët yi du ma wax ne lan yutiyan lan lan lan yutiyannahum joxut leen laahu yàlla xayran yiw allahu yàlla aalamu xam na maa fi anfusihim li nekk seen xol ya su fekkee def naa luy ngeen bëgg a wax isan boobale su ma ko waxee la mina zaalimi bokk naa ci tan kaja de xaaloo ñu ne ko yaa noo yee yow noox xat jaadalta naa daggi sante nga ak ñun fa akafarta bëri nga sax ji daal naa suñu daggi sante faati naa andil ñu bi maa taidunaa ci la xam ne yàlla ñu koy defal ci mbugal in kunta boo nekkee mina saadiqina bokk ci way dëggu ña xaala wax moom yonentu yàlla noox ne innamaa yaatikum daal dina dikkee leen bii ci mbugal moomu ngeen di wax allahu yàlla insha bu ko soobee mu gaawee ko su ko neexee mu yéexe ko waaye li wér te wa maa antum déet yéen bi mu xam ne seen ci suuf mbaa fu ngeen mën a ngeen a xam wala yan faakum du jariñ leen timit nu seesu nag laahi bir in aratu ndeen namu naa an an saxama laahi bir lakum ñaax leen in kaana bu nekkee laahu yàlla yuridu namu an yuxwiyakum seen ak mbewte da koy taawil masdar ko waa samag waaraate ak samag laahi bir du leen jariñ tus hu moom rabbukum mooy seen borom wa turjaxuna def na delloo leen yéen ñëpp ilay jëmee leen ci yàlla am wala bàyyil yaqulu ña wax ñoom yéeféer yéene ya kon gis nga ko nooxangoog ak lako lam wax nitam ña ak nitam ñu bon ña lañ ko wax lañ ko wax ne ko dal yow mi lu ngay nit ni gim nek nit ñu ne ko ci ñom ñi nit nga ne la ci ñom di laqad jaakum rasulun min anfusikum waye nit la tri min anfusikum ki gëna a ki ñom ñu ne ko waay maa naraaka ila basara misluna loolu kon ñu waxoon yonantu bi doon lu bees ñëpp lañ ko wax ci mboolem yonantu yi ñu ne ko tamit gis nañ la ñu la topp moo ñu ñàkk solo ñu rek arasiluna soo ko jëlee arasil nag mën naa nekk jamoo jamoo ndax jamoo ja mën naa nekk jamoo arsal maanaam arzulu arzulu moo ñu bidam bi dammi zaali su boobaa nag loolu jamoo ruhlu la jamu ruslun mi ngi melni nga ne kalbun ak aklabu man na nek tamit jamo rek au lieu que muy jamo jamo arasil jamo arsal comme ni waxe ne akbar jamo akabir abuta jamo abatih man na nek lolu su ko defé nak naka jek waxi weddi kat yep niro waxi ni gëm yep niro ni nako ñu suufé ñara top so bëggé ñi gëm la nang len dakk ñun ñu jege la loolu la ñu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax abasa wa tawala an jaawul ama wàcceeg la ca xew mun lay wama naa bi taar dina dina amunu kon loolu mooy wax ji ehm, ndax kat yàlla saa yu wàccee nga eh, eh, ngëneelam ci nit ñu suufee ñi rek ñoo koy njëkk a gëm ndax xamuñ benn kiiraay bu leen mën a muur loola waaye nag ñi xam ñoom duñ gëm mukk mooy borom alal yaag patron yaag yenn iya, ci borom xam-xam ñoo ñu lool day nekk kiiraay gu dox seen digënté ñoom ba yàqal leen su ko defee ci la sama borom di ca tofal yonent bi def ko muy jumlatul i'tirad door a dugg ci waxi noox moo tax mu ne am wala bàyyi yaquluna ña ngay wax ne ñoom xéeféeri màkka ya iftaraawu duud na alquran ji moom yonent moo ko duut wax leen ne in iftaraytoo su fekkee dama koo duut fa àllaye war na ma ijraami sama bakkaar fa àllaye war na ma ijraami mbugal ak sama bàkkaar ci duut gi wa ana man bariwun aji dañ laa mi maa na ci li ngeen di fàggu ci bàkkaar wa uuxiya wax yoof na mu dellu ca noox ilaa nooxin jëm ca noox ne na woon naka lay mbir tey mbir lan yóomuna du gëm mukk nit ñi illaa man qad amana loolu ñi nga xam ne gëmoon nañ ba pare de muy juróom ñetti fukki nit ña kon nag falaa tabtayis bul jàq bi maa kaanu la ñu nekk yefanoon di ko def de foofa nag mu xam ne du kenn du gëmati fi la noox nag tàllal loxeen rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayyaaran suma borom nangu ñaan nga nag ne ko defaral gaal maa koy surveiller kenn du ko yàq maa lay wax yu xam-xam bi nga koy defaree ba mel ni war a mel ba du suux ci géej gi moo tax mu ne ko was na liggéeyal ko gaal bi ayuni naa ci suñu janoo ak suñu wattu wax yu naa ak suñu ndigal wala tuxaatib nii bu ma waxee nag filisi ci nga xam ne xala moo tooñ nañ na naka ñoom de muxraquuna ñu ñuy labal lañ wa yasna'u ma ngay liggéey alfulka gaal ga waaye nag wa ma marasaa yoo xamee ne romb na xale yi ci moom mala un mbooloo min xawmi ca nit ñëm ña saxiroo ñi ree minu ci moom te mooy ñi sànji ko xaala mu ne in tasxaru su ngeen sànjee min naa ci ñun fa innaa naka ñun nasxaru danañu sànji min kum ci yéen kama tasxaruna comme ni ngeen ñiy sànjee de bu ñu yàlla musalee fa sawfa ta'lamuna xal si ngeen a xam man koo xam ne yaati dana dikkal ko azaabun mbugal yuux si boobu dana gàccal ko wa yaxilu dana wàcci alayhi ci moom azaabun mbugal muqiim bay aji sax hatta iza jaa ba dikkee amruna suñu mbir ci xalak leen wafaara wañax na ak tanuuru fuuru bi nga xam ne ci la doon soxnaam di lakkee mburu te loolu mooy màndarga bu ca ndox balee rek mooy màndargaam mbugalam seen nit ña moo tax keroog ba fuur ba wañaxee rek xul naa la ñu wax ne ko ihmil xenal sëfal fiihaa ca gaal ga min kulli zawjayni min kulli zawjayni ci bépp ci ñaari xeet gis nañ ni ñaar laa wax muy góor ak jigéen su ko defee nang ci nang leen nang leen xeb ci gaal gi wa ahlaka ak sa ñoñ ñi mooy sa jabar sa soxna ak sa doomi a ila man sabaqa loolu ko xamne ne na xale ci al qawlu kaulu baten te moy sa so soxna sele xamne dafa wedi di wa'ilatu ak sa doom jele di kanaan ñom di bokkun ci su ko defé nak gal ga pare na ñu reuy duggu nak wa qala waxna mom moom noox ne irkabu xéeg leen ha ca gal ga bisimilahi turu yalla mu jiraaha daw wayam wa mursaha mbir muy nek timit di teru wayam teru wayam ak daw wayam yeb turu yàlla mooy gaasuwaal ba inna rabbi naka borom sama la xafoorun jéggalaa kon la rahimun yërëmaa kon la waxiya moom gaal ga tajri ma ngay daw bihim ak ñoom fii maw jëmbir muy nekk ci duus kël jibaal yu yëkkati ba mel ni ki doj wa naadaa hoona nooxu noox ibnahu doom ja kanaan wa kaana nekkoon na moom doom ja fii maasalin mbir muy nekk ci beruwaay walis gaal ga mu ne ko yaa bunayya yow sama si ndoom tasxiru ishfaaq la irkab xéegal maanaa ànd ak ñun wala tàkkun bul nekk maal kaafirina ànd ak way weddi ñi xaala doom ji ne ko sa aawi xal si naa tapp ilaa ci doj yaasimu nii boob dana musal ma minal maayi ci ndox mi xaala noox ne ko laa asima jet jet déet jenn aji musal al yawma tey min amrillahi ci mbugalam yàlla mi ah ilaa man dul koo ne rahima yërëm na ko yàlla ba musal ko mu ànd ak man fa muy waxee rek di yooxu doom ja waxaala digale ne bay nuumaa seen diggante al mawjud duus ba fa kaana nekk na moom doom ja wala bu la neex nga ne fa kaana mujj na minal muxriqiina bokk ci ñu lab ña waqiila waxeef yaa ardu hee yow suuf si bilaahi maanaam wannal maanaam maa ay sa ndox mi sa ndox mi nga gëqi woon yëpp wan na ko naan ko su ko defee nag mu mujj nag euh, la asamaan si tamit fekk da doon taw suuf siy gëq ndox wa yaa samaahu yéen asamaan aqla'i sabatil maanaam bàyyi fa taw bi waxii dañ ñii siif na almaaw ndox ma ba des dex ya waqu dee xatteef na al amru mbiral ma te mooy mbir ma ci xalak noox nitu nit nitu yonentu yàlla noox ya bu ko defee musal yonentu yàlla noox gaal gay daw ca gi ca géej ga ah, su ko defee rajab la fi déparé ba ci eh, yow mu asura mu tombeeg fukki mu jur juróom benn weer mu door di teer ba mu teeree nag wastawan na nga teeree xalal juudi ca doj woowa ca juudiyu nekk ca jasiratu den ak mawsal waqiila waxeef buuxdan alkande lil qawmi ñeel na nit ña saalimi ña di way tooñ te mooy nit yonentu noox ya wa naa daa xoote na nu xoona nooxu noox rabbuhu boromam fa qaala mun rabbi yow sama borom inab nii naka sama doom gi di kanaan min ahli bokk ci sama ñoñ te yaa ma dëhaloon mucc sama ñoñ wa inna waxdaka naka sa dëhal alxaqu lu dëggu la duhut luy sooy wa anta yow ahkamu xaakimina yaay xatteeg way xatte ñi qaala sama borom ne ko yaa nooxee eh yow noox innahu naka moom laysa min ahlika bokkul sa ñooñ ñi de bokkul sa ñooñu bokkul sa ñooñ ñi ndax bokkul ci sa ñooñu diine ji te innahu naka laaj googu nga laaj ma ah, ci mucc ak sa doom ji xamalun jëf la joo xam ne xayru saalihin jurut jëf yiw innahu naka moom sa doom ji xamalun borom jëf la saali xayru saalihin jëf joo xam ne duut ju baax taawil nañ ko juróom-ñaari firin falaa tas allan na bul laaj ma lay salaka lo xamne ñew lo bi ci xel mun ben xam ini naka man aisu ko maa lay war anta ko nga nek minal jahilina ci way reerina ña nak du yonent yalla no wax ne rabbi yo sama borom ini naka man a'udhu ma ngi muslu bi ci yaw an asalaka ma lay laaj ma lay sali lo xam de di ma ñal bi ci mom xel mun ben xam-xam way la taxfir li bo ma jegalul bo jegalul li ñal ma wa tarham ni nga ma rek minal khasirina bokku ci way perte ña xiila waxeef yow no ihbit wàccal bi salaamin ànd ak jàmm bu ko defee tamit min naa gu bàyyi ko ci yun wa barakaatin wàccal ànd ak yiw yu bëri xalayka ci yow wa alaa min ak mbooloo mi man maaka ñi ànd ak yow umumun ak mbooloo nag sanu matte om danañu yóbbal leen ci àdduna su ma yemu suum topp nga ta leen mi naa ki ñun xasaabun mbugal alima may borom ak méttital de eh, yàlla ne tilka ayaat yi ñi jàngale mu làmboo xisab noox min an bàyyil xëy bi tukkee koo na ki sooy faddu ilayka jëm ci yonent bi maa kunta nekkoo woon taalamuhaa di ko xam anta yow laa wax wala qawmul caakan sa nit ñi min qabli haza njëkk wàcc ak alquran kon fas bar fas bir muñal ci jotal ak ah, maanaam li nga li li may wàccee ci yow ak li ñu ci mën a lor ina la aqibata naka mujj gu rafet lil muttaqina ñeel na way ragal yàlla ñi kon nag gaawal naa ko ci noox ak xisaam yooyu daanaka mën naa wax ne duhut lu lënt ndax li ko téere bi takkaraar bëri na lool ci yow yonentu yàlla noox moomu ak nitam ñu bon ñi fi mu jaar ñoom ak ñoom ak ñoom ak ñoom